vraiment depuis démb ñu ngi seetlu ne am na yàq-yàq yu bari yu am ci réew mi maanaam ci li ci gën a doy waar mooy bu dee loo xam ne lii suñu yëf la maanaam lu mel ni ay lekkool dafay xaw a doy waar parce que man loolu wax dëgg yàlla mënuñu ko comprendre bu ñu demee ba Kër Massar signalé nañu ko démb suñu banqaas bi nekk foofu université de Dakar chapiteau ba dañ ko taal nañ ko ba bibliothèque ba sax dégg naa am na luñ ci kii boole koog li am ay côté Ziguinchor ak feneen donc euh, vraiment njaxare la li ñu mënul comprendre nag mooy bu fekkee ne da ngaa mer dem ba li nga xam ne li yow yaa ko sa sa say say say rakk say say doom say jarbaat ñi nga xam ne fa la ñuy jàngee nga dal di ñëw di ko yàq defe naa ne loolu kenn mënu ko comprendre te ñun dañ koy ñaawlu li ñuy wax nag mooy dal di woo sénégalais yi à raison.

Nous fi ay grève té ñun ñaa nga doon pour grève quand même euh, respecté ñu aussi sétlu ngeen fi politique bi ba chaque fois buy waaj rek dañu naan école yi day tejj sétlu ngeen fan yi passé région de Ziguinchor ak bu waaw dañu dañu dañuy gaaw wax nañu entamer canton scolaire bi ce dire que muy incidence